yooye fan muy xaas ci nu man ci liggéey Sëriñ Tuubaa loola fan yooye war nañ ko sant yàlla sant koo xam ne gën fëtiwu ko kaw sant ko Sëriñ Tuubaa eh, kon nag yàlla nu yàlla dolli tawfiq eh, dolli nu ndimbal béyee suñu dund gépp nu koo jaay eh, liggéeyal ko Sëriñ Tuubaa li feeg noo ngi noyyi nan sant yàlla bu baax a baax te góor góorgóorlu rek li des ci sunu dund kenn ku ne ci ñun fas yéene liggéeyal Sëriñ Tuubaa rek